ajaboon ki ki nu rappelle qui me rappelle mon enfance yéen aussi xam naa ne wooy buleen neex la am fu leen yóbbu malheureusement euh, euh, pour Ismaël Lo aujourd'hui mais heureusement pour nous dama commencé tey ma dugal hymne national parce que analyse bi may def day dugg ci analyse discours lu ñu fédéré ce qu'on partage ce qu'on a de commun yi nga xam ne mënuñu ko partager mënuñu ko bañ a maanaam séddale mooy l'hymne national du Sénégal le Sénégal a c'est une république qui a son hymne mooy suñu hymne national mooy suñu bàkk foo ko déggee boo toogee da ngaa war a jóg taxaw boo ko dee dox da ngaa war a taxaw sargal hymne boobu moom lañ am amuñu lu ko gën a kawe hymne boobu bokk na ci lu tax ma indi ko dafa am ay bunt yu ma bëgg a ubbi moo tax ma njëkk a um, hymne bi tey daa di teganda Ismaïla Lo daa di ñëw ci hymne boobu hymne national mooy li ñu boole kon xam nañ ko mooy aussi la devise du Sénégal mooy un peuple un but une fois loolu daf ñu boole aussi ñu bokk ko un peuple un but une fois loolu ñun ñëpp ko bokk ça fait de nous tous à égale dignité à part entière des sénégalais amul Diaz laa sant amul Koroya la sant amul Kan la sant amul Mbàkke la sant amul Si laa bëgg laa sant ba tax nga defa ni yaa war a mën a gën sa morom ñun ñëpp à égale dignité hymne bi moo ñu réunir mooy un peuple un but une fois loolu mooy li nga xam ni mooy suñu devise mu am nag li nga xam ni mooy gaynde nekk suñu soo ak li nga xam ni mooy bu guy di baobab loolu mooy les emblèmes du Sénégal guy gaynde gi mooy lu président de la république xaatim moo xam décret la moo xam maanaam maanaam projet la lu mu xaatim rek gaynde gi lañ ciy teg mandargaal ko ko mooy wane ni lii kat lu këyit gu jóge ci président la moom rek lañ ko jagleel ci Sénégal bu fekkee nag dafa nekk ci administration bi këyit ya fay jaar moom guy gi leen jagleel loolu mooy li nga xam ni mooy les emblèmes du Sénégal mu am nag drapeau bi vert jaune rouge ak maanaam étoile bu verte bi nekk ci digg bi vert bi moom moom lañ déjee li nga xam ne mooy nature bi gàncax gi ak àll bi naataange Sénégal jaune bi ñu ni nag moom lañ jël mi nga xam ni mooy li nga xam ni mooy savane bi li li nga xam ni moo symboliser Sénégal di symboliser tamit au delà de la savane jant bi ak li nga xam ni mooy lumière mooy maanaam li nga xam ni dafa baax ba pare nag ñu teg ci rouge rouge bi nga xam ni nag mooy nee nañ deret ji nga xam ni wala maanaam bañ gi nga xam ni suñuy maam dañ ko daan bañ te dépp ca ko ca ka nga xam ni yàgg na ca jamono yu yàgg ya mën nañ ca tudde war jaabi ya mi nga xam ni moom lañ ni moo ñu indil diine lislaam ci biir Sénégal jaare ko ci ki nga xam ni mooy Njaajaan jaay jóge fa dem ci ki nga xam ni mooy may sawali Njonn maane jóge fa dem ci ki nga xam ni mooy maanaam euh, Amari Ngoone Sobel Fall jóge fa dem ci ki nga xam ni mooy Linguère <coughs> Ndate Yàlla wala ñu dem ci Yamar Faati mooy mi nga xam ni mooy waajuram jabar Faati Mbooj wala ki nga xam ne mooy Njëmat Mbooj di ki nga xam ni mooy euh, maanaam magi ki nga xam ne mooy euh, Ndate Yàlla Mbooj wala ñu juge fa dem ci Alioune Sitoé jaata jàmbaar ja bañkat ba wala ñu jaar ca ka nga xam ne mooy Alburi Ali Seynabu wala ñu juge fa tamit dem ci ci nga xam ni mooy Lat Joor Ngoone Latiir Jóob boo fa jugee ñopp nag nga dugg maanaam fi nga xam ne mooy Medina Baay fekk fa doo fa fekk maanaam ki nga xam ne mooy Cheikh Ibrahima Niass cheikh al islam da nga fay fekk waaye baayam mooy baay maam Ablaye Niass mi nga xam ni moo njëkk a nekk suñu kilifa boo fa jugee da ngay dem musoobe fekk fa maam maaram wàññeeku ci maam maaram dal ci maam Habib boo dalee ci maam Habib dangay dal ci ki nga xam ni mooy sëñ Morante Sëli boo nee sëñ Morante Sëli nag dangay ngay wax jàmbaar yi jàmbaar yi muy xaadimul Moustapha Serigne Touba waaye nag doo tudd Serigne Touba te ci ki nga xam ne moog Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul diina boo fa jugee da ngay dem Yoof boo demee Yoof fekk fa maam limaamu Seydi boo fa jugee ci maam limaamu da nga fay fekk tamit Cheikh Issa Ruuhilaahi mi nga xam ne tamit ca njaboot ga la waaye tamit mënoo dem Tiwaawan doo tëb Tiwaawan da ngay dem ci suñu maam Alaaji Malick waaye tamit dangay ngay delluwaat Fuuta Tooro dellu ca gaaya ka nga xam ni nag mooy suñu maam ñun ñëpp di cheikh ki nga xam ni mooy Cheikh Omar Foutiyou loolu lépp ci Sénégal la bokk kon loolu mooy Sénégal nga ñëw ci nag ñun ñii ak maanaam ñi fi jaar Cheikh Anta Diop ñoom professeur Ablaye Bathily Ablaye Wade mi fi jaar Senghor mi fi jaar Mamadou Dia Wal Joojo Ibrahima Sarr nga dem aussi tamit ci jigéen ñi nga xam ni kenn demul mu des mooy jigéen ñu ndeer ña ki ñuy wax mbarke Dia mënoo ko bañ a tudd ca ndeer maanaam daal loolu jàpp na ni mooy Sénégal ba ci ñun ñi nga xam ne tey ñu ngi fi di xeex ak di représenter Sénégal donc hymne boobu ma ma ubbee dama ci bëgg a def questionnement parce que hymne Sénégal dama jàpp ni reflété wul li Sénégal doon c'est un débat nag tey du ñu ko ubbi di ci yi mais ça fait l'occasion qu'on pose ces de question là parce que jàpp nañu réew mi ñoo ko moom te dafa am ñu fi jiitu woon tabax ko 1960 mais jotul man jàpp naa ni jot na sénégalais yi taxaw xoolaat hymne boobu ndax hymne normalement boo ko déggee dafa war a am lu mu def ci yow man damay wax rek sama yàlla yàlla rek mooy tax hymne Sénégal du ma ko dégg ba mu am lu mu def ci man man amul jenn jeexital de par les paroles de par en fait la mélodie de par en fait li nga xam ni moom la ma war a bàkkee man pour man c'est un hymne qui n'honore pas le Sénégal au contraire da koy sax day suufeel darajey Sénégal yëkkatiwul darajey Sénégal déjà y a beaucoup de métaphores dinañ am benn jour boo xam ne on va prendre du temps décortiquer l'hymne grammaticalement décortiquer l'hymne euh, syntastiquement parlant décortiquer l'hymne li nga xam ni mooy li nga xam ni poésie poésie bi ñu xam ni dañ ñu gëmloo ni Senghor moom la ci moom la ci dugal mais nag c'est un débat ouvert c'est un débat boo xam ni du Cheikh Kane moo naan fii la ñuy jaar wala hymne bii la ñuy def en tout cas man je juge que ni fi Sénégal tollu tey war nañu mën a ubbi débat ci suñu hymne bi ba xam jotul ñu soppi ko wala ñu proposer maanaam ay beneen texte bu gën a nuru Sénégal parce que man boo xoolee trajectoire historique gu Sénégal jàpp naa ne les paroles de Senghor ne reflètent pas la trajectoire historique de du Sénégal Pour man la musique d'Hébert Pépère ne reflète pas, n'encourage pas, n'accompagne pas en fait la trajectoire historique, sociologique, anthropologique et culturelle du Sénégal. Kon est-ce que jotul nous Sénégalais peuple souverain depuis 61 ans qu'on pose qu'en fait le débat sur l'hymne national parce que hymne boo xam ni yow ñi ëpp ci sénégalais yi boo jëlee boo jëlee 17 millions de sénégalais jàppal ni peut-être les 16 millions mënuñu hymne Sénégal mënuñu ko parce que hymne bi les parole ne sont pas simples du hymne refrain yi simplul parole yi simplul maanaam école nga koy jànge te ñi jàng tubaab bëgg tubaab ñooy mën hymne bi tey jii buñ defoon test ci mbedd mi di teste ñan ñoo mën hymne Sénégal hymne national ak ñu ko mënul dinañ gis ñi ñi ko mënul ñoo ëpp ñu ko mën parce que ça ne parle pas au Sénégal hymne du loo xam ne da ngay tëju sa bureau di yor crayon à la di dind ay bind ay hymne hymne sans d'honneur la tey jii ku dégg maanaam ñu ni Ngoné Latyr Diop bàkkam da ngay am loo yëg boo dee Kayoor ku dégg ñu bàkk maanaam ki nga xam ne mooy Ndate Yàlla wala waa Waalo da ngay am loo yëg ku dégg ñu bàkk waa Fuuta Tooro da ngay am loo yëg ku dégg ñu bàkk maanaam Aliou Souté yow da ngay am loo yëg mais bu ñu bàkkee Sénégal malheureusement les Sénégal ne se retrouvent les Sénégalais d'une manière général wala dans l'ensemble ne se retrouvent pas dans l'hymne man loolu laa seetlu C'est un constat que j'ai fait, peut-être je me trompe, mais bon, je voulais m'associer au débat, je voulais amener ce point la pour que léegi ñu débattre ci loolu loolu mooy li nga xam ni moom laa doon indi ci hymne bi mais je pense que ni war nañ ko taxawal te dinañ ko taxawal incha allah moi je vous promets de revenir sur le texte en entier je vous promets de revenir ci parole yi ak wax ji ak maanaam musique bi ak composition bi ak fi nga ko jëlee ak maanaam droit yi nga xam ni sax dañ ñu ba tey sengoor ak famem ñu ngi koy ñu ngi ko ciy jël parce que bu ñu fàtte ni sengoor moo ko bind kan moo chargé woon Senghor pour mu bindal ñu hymne je pense que defuñu référendum man gisuma jamais dans l'histoire du Sénégal fu ñu defee référendum ni Senghor bindal ñu hymne bon il s'est posé comme le père de la nation alors que il n'en est de la nation bindal ñu hymne léegi nag est-ce que jotul sénégalais yi questionner Senghor questionner hymne national questionner maanaam li nga xam ne mooy musique bi nga xam ne moo ci nekk je pense que ni ñun sénégalais en tant que peuple souverain ñun sénégalais en tant que réew mu màgg mu moom boppam fonk boppam am histoire am war nañ koo mën a def mais loolu day doon un débat national boo xam ni les sénégalais vont prendre Euh, par expliquer kenn ku ci nekk bu jaree bu fekkee le sénégalais son convaincus que ni dañ fi war a bàyyi hymne bi on on va le faire bien sûr mais si les sénégalais aussi disent que ni non ñun nous voulons chose wala paroles yi adapté tul dañ ko war a dañ ko war a changer loolu c'est les sénégalais qui vont le faire bon loolu laa ni woon naa ko indi ci hymne bi de manière ramassée mais damay dem continuer dugg fi nga xam ne nag tey fa leen jox rendez-vous mooy l'interview bi nga xam ni démb wala bërki démb je pense bërki démb la euh, le président de la république jox na ko média yi nga xam ni mooy RFI ak France vingt 24. avant ngeen may ma ma marqué benn pause parce que wax yombul te Cheikh Kane foog muy naan moo tax il faut mu naan tuuti. ak tee bi boo naanee ndox ba pare jël tee bi. waaw gars yi kon dañuy ñëwaat continuer débat bi teg ko ci maanaam li nga xam ne mooy cadre bu ñu leen woowee tey cadre bi du yomb la bërki démb Moussa sama xarit maa ngi lay ziar Moussa Diagne Sidiya gëj naa laa gis namm naa la ci loo nekk de passage namm naa la trop namm naa soxna si aussi awa nga nuyul ma ko lu bari lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu lu ñuy bëgg a tey jii bëgg ci wax tey mooy en fait li nga xam ni moom la interview bu joxe interview bi maanaam bari na ay ay point euh, Amadou maa maa ngi ci biir maa ngi ci biir <laughs> maa ngi ñëw <laughs> tu me fais marrer mais maa ngi ñëw je t'en prie interview bi bari na ay points yoo xam ni mën nañ ko relever c'est un c'est une interview très riche intéressante ci cadre politique ak xam nit ki ak maanaam li nga xam ni moom la indi ci ay ay ay ay ay ay loo mën a jàngate ci moom déjà dañuy commencer ci décor bi décorer interview bi parce que souvent les sénégalais wala ñun du ñu taxaw ci décor xam nga nit aussi nit du wax rek nit maanaam morphologie la nit habillement la nit décor la nit maanaam lu bari la mënoo ko jël rek surtout nag kilifa gu doy ni président de la république bu woowee ay nit am ay gan toog ak ñoom di waxtaan ak ñoom kon boo koy analyser war nga ko maanaam dugal ci loolu lépp mooy maanaam xool ni mu solo xool gestuel am xool ni mu toogee xool langagem am xool regard am xool maanaam li nga xam ni moo ko wër kon fi ñuy commencé mooy dañuy commencé ci nit ki ni mu toogee maanaam ni mu toogee ak li mu sol président de la république mu ngi sol benn costume bu gris maanaam mën nga ni duma ni costume bu noir la tax jasada jàpp naa ni on n'est pas en deuil maanaam costume bu gris maanaam bu bleu bleu bleu marin bu gris laa ko laa laa laa koy définir maanaam costume bleu bleu sombre mu ngi takk benn cravate bu bu bleu mu ngi sol benn chemise bu weex voilà loolu mooy man li ma gis ci moom maa ngi gis à côté de journaliste ku jigéen ki moom mu ngi sol benn décolleté et puis boo xam ni dafa xaw a nuru ak couleuru salle bi nga xam ni fëlal leen ak accueillir dafa am solo li may wax nii bu leen ko defe ni ay détails la du ay détails c'est important moi je suis dans l'analyse te bu may analyser je prends tous les paramètres en compte ki nga xam ni mooy journaliste beneen bi tubaab bi moom mu ngi def benn cravate bu rouge def maanaam benn costume boo xam ni bon sombrul mais aussi benn costume bu gay boo xam ni bu agréable léegi lu tax may def def analyse boobu dama leen bëgg a wax lom qui était en face ak moom fi mu nekk ak yi nga xam ni fa lañ invité nit ngeen gis ni couleur yi allez voir l' interview yi nga xam ni moo war le président de la république di ngeen ci gis ginnaaw mu am drapeau CEDEAO ak li nga xam ni mooy drapeau Sénégal loolu moom c' solennel dañ koy saluer ngeen gisaat aussi que ni moom foofu couleur yi am na benn jaune bu agréable bu nekk ci couleur yi mooy zone soleil xam nga lu ñuy wax euh, une zone du midi bu ne une zone du midi mooy zone boo xam ni daanaka bu soleil bi nekkee ci digg digg àll bi maanaam ci digg njolloor zone bu mel noonu zone bu dam bu ñor ba nga xam ni ñor na te ñorul zone boobu ngay gis mu xaw a mel ni lu zone bu lumineuse ci biir salle bi léegi foofu dama fay taxaw man lu ma fay njëkk a taxaw mooy su ma doon noté habillement bi je pense que suñu président il s'est mal habillé parce l'habillement man li ma ci gis mu mu mu costume bi ak cravate bi lu mu traduire man pour man il était pas il était lourd maanaam dafa diisoon pour quelqu'un koo xam ni yow yaa ngi ci biir palais présidentiel mooy yow yaay recevoir tu des hôtes yow yaa leen recevoir yow yaa leen accorder interview man pour man foofu noonu il était trop maanaam solennel te dafa nekkoon moment yoo xam ni solennité solennité bi sola solaliti bi daf ko waroon a wàññi dugg ci li nga xam ni mooy maanaam agréabilité parce que pour man le sérieux daf ko topp ci interview il la essayé de masquer en fait sérieux mais pour man le moment foofu du woon moment boo xam ni day sérieux en tout cas son habillement man bu ma ko dee jàngat je vois j'ai vu quelqu'un koo xam ni il était lourd quelqu'un koo xam ni il était embarrassé quelqu'un koo xam ni il n'était pas pas du tout détendu parce que loolu man laa gis peut-être am na yeneen ñu gis beneen regard wala beneen lecture mais man pour man lecture boobu abimam en tout cas loolu la ma renvoyé je conseille à ceux qui pas encore vu l'interview d'aller visionner la video peut-être li may wax nii di ngeen ko partager wala doo ko partager loolu mooy premier lu ma gis ci premier point bi léegi ñu avancer ci deuxième point bi deuxième point bi maa ngi gis bon scénario boo xam ni c'est désolant mooy deuxième point bi je vois un scénario très désolante lu tax mu désolante mooy dañu gis ni ñun finalement on un président boo xam ni finalement moom waxak ak yi wala wax ak français yi moo ko gën a yomb mu wax ak maanaam ñi nga xam ni ñooy sénégalais yi parce que yow mënuma comprendre yow ñun ñu ngi ci jamonoy Covid man mënuma comprendre ñu ngi ci jamonoy àdduna bu jaxasoo maanaam Sénégal de plus en plus coow li bari fii mu jaxasoo yaa ngi gis ay cadre unitaire l'islam ñu ngi jóg naa opposition bi tey marche bi doon am sax dañ ko doon tere et puis yooyu yëpp yow doone ma président bi amul benn journaliste bu Sénégal bu nekk Sénégal bu capable maanaam dékk ko interview mu may ko ko maanaam mu interview mu woo journaliste sénégalais bu ko neexoon mën na woo waa Walfadjiri woo TFM woo maanaam li nga xam ni mooy maanaam euh, télé yi fi nekk accordé leen benn interview non non kon interview bi moom daf ko accordé ñi nga xam ni ñooy tubaab yi kon moom message bu mu doon jàllale na sénégalais yi xam ni moom waxul ak ñoom moom daf ñu ignoré faalewuñu xeeb nañu bëggul a wax ak ñun ñi mu doon waxal mooy tubaab yi la doon waxal te li lay wan ni tubaab yi loo lay waxal mooy interview bi france la ko def defu ko wolof mooy il s'adressait pas aux sénégalais il voulait donner des garanties aux occidentaux il voulait maanaam relayer la message au occidentaux comme quoi maa ngi leen di dégg maa ngi leen di bàyyi xel je vous donne les garanties man loolu laa ci gis parce que ya a qu'une seule version mooy interview bi 85 pour cent des sénégalais voire 90 pour cent des sénégalais Macky Sall ak ñoom dégluwuñ ko parce que lu tax wuñ ko mooy france bi muy wax sax ñoom dégguñu dégguñu ko kon loolu c'est une évidence que ni kii il voulait pas s'adresser au sénégalais mais plutôt au occidentaux pourquoi il l'a fait on va entrer dans les détails pour savoir man boo en tout cas idée bi ma ci am mooy il l'a parce que dafa bëgg am message bu leen jàllale donc l'interview que les sénégalais yi nga xam ni dañoo defe woon ñoom lay waxal ki disjoncte xam ni waxul ak ñoom nañu naan ndox te dal il s'adressait pas à eux il s'en foutait pas mal sax ci ni mu waxee da ngay gis ni il s'en foutait pas mal de nous man loolu laa gis dans son discours voilà loolu mooy premier point bi nga xam ni deuxième point bi nga xam ne après l'habillement gis naa ko léegi ñu dem ci troisième point bi on voit euh, le journaliste qui lance la première question monsieur le président bonjour ils sont dans les salutations ce qui est tout à fait normal c'est le c'est en fait c'est la classique mu ni ko première question journaliste bi ni ko en fait euh, ñu dugg ci question maanaam terrorisme mooy première question maanaam terrorisme foofu président daal di répondre bon déjà appel bi bim ko bi ko nuyoo jaar na seen tur moom nuyu leen seeni tur la jaar maanaam da leen a kenn ku ci nekk daf la tuddal sa tur maanaam moom nekkul dans le vouvoiement alors que président de la république koo mën di waxal koo mën di waxal danga nga war a nekk dans le vouvoiement ba mu jeex doo tutoyer ay nit ci kanamu ay caméra ci kanamu say citoyen kon loolu boo ko defee yow say citoyen am na nañu droit tutoyer la donc déjà mooy premier manquement bi ma gis dans le discours moom il est allé directement dans le tutoiement parce que seen tour la jaar alors que ñoom dañu rem dañ ko ni le monsieur le président de la république moom il devait rester dans le vous mais mënul dugg ñu ni ko président de la république moom mu dem ci tutoiement direct loolu du kotu déontologie loolu maanaam c'est une erreur monumentale dans la communication kooku président bu xamul ay prérogative am maanaam wala bu wégul askanam mooy def loolu parce que siège boobu mu toog au moment mu fa toog rek c'est le Sénégal la fa toogal kon Sénégal mënoo leen dugal ci ay tutoiement wala ay caaxaan mooy man sama première remarque peut-être am na ñu ko d'accord am na ñu ko d'accordul dem leen je vous je vous je à aller voir la vidéo bon ñu dugal ko ci li nga xam ni mooy terrorisme première question bon ak léegi invité ko ni ko Union africaine le le le ki jiite Union africaine mooy le le le le Tchadien là nee na bon Union africaine le Soudanais autant pour moi nee na Union africaine ça ne va pas du tout ak ay ay problèmes yi ñu ci wax ak yooyu noonu. je pense c'est un Soudan c'est un Tchadien si je me trompe vous me rectifiez mais je pense que ni c'est un Moussa je ne sais pas il a un nom compliqué mais c'est un Tchadien bon empêche c'est pas lui le sujet le sujet c'est Macky bon après bu mu duggee foofu mu ni ko nag léegi mu ni mu ni hélas premier mo bi mu utilisé mu ni hélas maanaam mooy un acte désolé désolant un mot qui qui qui traduit en fait un sentiment de désolation moo ne ko mais hélas ba pare daal di indi nag daal ni wax na dëgg waaye ma espoir léegi mu daal di continuer daal di wax nag daal Afrique da bal un table sombre de l'Afrique mu ni crise yi on voit le Boko Haram la crise autour du lac Tchad et puis bon daal di crise malienne euh, évoqué na crise yu bari bon dañuy dem par étape yéen a may déglu maa ngi wax on va voir est-ce que Afrique actuellement fi mu toll ñan pays ñoo fi nekk en crise ñu wax ma pour 54 états quand même on va on va essayer plus ou moins de citer ñan pays ñoo fi nekk en crise bon Nigéria y a le phénomène Boko Haram Boko Haram kañ la ça fait Boko Haram mu ngi depuis 2002 2000 2000 2000 2004 ñu ngi xeex Boko Haram aujourd'hui on est 2021 muy ñaata ñu ngi ci 17 ans yoo xam ni daanaka Niger Boko Haram génnul phénomène entre Nigéria ak Niger ak Cameroun mais nord Cameroun voilà loolu mooy Boko Haram avec ça maanaam son phénomène ñu jël li nga xam ne mooy somali ak El Shabab parce que moom moo wax nee na Afrique fi ne y'a c'est un tableau ya a un tableau sombre moom moo ko wax c'est pas mes moo c'est le mot qu'il a ñu jël li nga xam ne mooy El Shabab El Shabab mooy en fait euh, euh, groupe terroriste yi nga xam ni somali lañ nekk nekk fa di opérer maanaam di fa def ay ay ay acte ah, tantôt ñu ngi Somalie tantôt ñu dugg Kenya tantôt ñu ngi dugg ñu ngi dugg Éthiopie bon dem nañ fi sax Ouganda loolu am na bon loolu beneen réalité la mais nga jël par exemple fi nga xam ni mooy en fait euh, mooy en fait Mali Mali y a la l'activité terroriste là-bas Mali et le Burkina ils son frappés durement par le terrorisme c'est c'est une réalité nga jël li nga xam ni en fait mooy le centre de l'Afrique est-ce que gis nañ foofu terrorisme vous allez me dire vous prenez le sud de l'Afrique est-ce que gis nañ fa terrorisme vous allez me dire vous prenez le nord de l'Afrique est-ce que gis nañ fa terrorisme vous allez me dire donc ñoom jàpp nañ dans leur schéma ñu ngi programmer les Africains nee nañ sur cinquante quatre états il y a même pas dix états qui sont en rapport avec le terrorisme nee nañ bon l'Afrique présente un tableau sombre nee nañ maanaam terrorisme bi réalité africaine la bon dañuy jël rek les occidentaux nga jël France nga jël nga jël maanaam quinze états yi nga xam ne ñoo demoon Afghanistan te bërki dem Afghanistan lijjanti leen fa toroxal leen fa à commencé par les États-Unis ñooñu ñooy ñëwaat di projeter maanaam un table sombre sur l'activité terroriste en Afrique bon loolu ñoom ñoo ko wax ak ñi nga xam ni ñoo leen toogal foofu di leen ko waxal commencer en commençant par le président de la République bon loolu je vous apprécier ndax li mu wax am na confondre na ak réalité bi wala amul en tout Afrique moom on voit que ni pays yu bari ñu ngi avancé Nigéria même 17 ans ngi ni mu nekk ci terrorisme mook Boko Haram Nigéria mais ça n'a pas empêché le Nigéria d'être depuis 10 ans le géant de l'Afrique maanaam économie Nigéria depuis 10 ans mooy économie bi gën a prospère ci continent africain bi kon euh, euh, terrorisme ba est-ce que impact bu exceptionnel buy empêcher le Nigéria d'avancer am na fa je pense pas beneen mi nga xam ni mu ngi nekk à côté mu ngi ci révolution bi nga xam ni mooy révolution agricole Ghana mi nga xam dafa am frontière ak Nigéria mu ngi passer en fait à l'étape industrielle de son économie maanaam boo jëlee réew yooyu yëpp ñu ngi dem seen yoon kon Mali c'est un c'est une problématique boo xam ni il faut pas qu'on la face Mali maanaam ña ko fa indi mooy Mali pour man tubaab yi ñoo fa indi activité terroriste il faut oser dire les choses comme telles le Sahel tubaab yi ñoo am intérêt déstabiliser le Sahel moi defoon naa fii benn live di leen wax enjeu politique yi nekk Sahel la ñu réussirul Afghanistan loolu lañ bëgg a reproduire il faut pas que les Africains se voilent la face la ñu réussirul Afghanistan loolu la ñuy réussir bëgg a réussir Sahel actuellement ils sont à peu près ay neuf état occidentaux yoo xam ne ñu ngi Sahel di xeex dooni ma neuf ñi jamoon fële Afghanistan nekkoon fa quinze taliban yi toroxal leen ñooñu ñooy ñëw la Sahel avec matériel yi ñu am yépp mënuñu xam fan fa la terrorisme yi ne man gëwma seen version bi ñuy wax gëwma seeni wax bon on voit bien que nag tubaab yi ñoom li ñu bëgg mooy en fait dañu bëggoon koo xam ne day plaider jëm ci ñoom parce que deuxième journaliste bi li ko wax nee na ko ndaw si moo ko ko posé la question moo ne ko kon est-ce que le Sénégal ne pas menacé bon foofu moom il faut ñu taxaw fa il faut ñu taxaw fa parce que la réponse est intéressante quand même elle mérite d'être analysée Xadim maa lay ziar Diop maa lay di la di la di la baalu àq di la baal di ziar Yacine Serigne Babacar Sy maa ngi lay ziar aussi euh, voilà la réponse elle est intéressante dans la mesure où dafa am loo xam ni daf ko wax daf ko jiital journaliste yi daf ko laaj ni ko est-ce que le Sénégal nepa pas menacé loolu la ko laaj le Sénégal mu ni ko bien sûr que notre waxu ko notre pays de dañu ko moom pays mooy moom moom moom Sénégal il est dans le jeu xam nga communication du ay naxee communication li ngay wax maanaam nopp yi muy tàbbi dafa am nuñ koy gisee bon en tout cas man dans le discours dans l'analyse dama ci gis une forte présence du pronom personnel jeu maanaam dégg naa président bi mu ni mon pays dégg naa ko mu ni mon peuple te buy wax moom i s'applique au singulier il se conjugue au singulier moom dans le nous dans le nous mom bokku ci mooy kon moom il est dans des habits buñ buñ koy wax rek euh, communicationnellement parlant égoïste koo xam ni moom boole wuñu ci ay mbiram maanaam boddiku na parce que moom il sort du cadre sénégalais moom il se conjugue au maanaam au au singulier il se conjugue au premier pronom personnel c'est-à-dire le jeu te tubaab day wax ni le moi est haïssable parce que journaliste bi moo ko ko laaj merci Djibi li ngay wax noonu moom laay wax tubaab dani le moi est haïssable et quand la journaliste a posé la question est-ce que le Sénégal est menacé moom il pouvait répondre en disant si le Sénégal est menacé ou pas moom kenn woo ko yow est-ce que tu es menacé wala est-ce que vous êtes menacé monsieur le président dañu ko est-ce que le Sénégal mu ni mon pays moom mon pays la wax waxul le Sénégal kon moom dans sa conception moom moom moom Sénégal bon loolu mën nañ ñu wax ni ñu bon langage la ça a glissé et tout mais en tout cas communication moom ñun dañuy décortiquer message de communication en tout cas man gis naa loolu ci moom et je vous invite à aller voir vous allez faire le constat bu du loolu ngeen ñëwaat fii ni ma loolu amul. gis naa loolu mu njëkk ma choqué man daf ma choqué parce que pour man président bu toogee di wax day am grandeur la Mandela doon wax Mandela dani c'est parce que j'existe je suis c'est parce que nous existons maanaam su ma nekkee mooy yéen a nekk moo tax ma mën a nekk moo tax dans la philosophie ubuntu bi nga xam ne mooy li nga xam ne mooy la base de la culture africaine wala la base de la culture bi nga xam ne mooy culture maanaam li nga xam ne mooy les Xhosa Mandela daf ciy wax loolu dans son ouvrage il le théorise léegi nag loolu man moom laa gisul maanaam li nga xam ni moom moom def na ko parce que bu ne sosie bon c'est un débat moi je fais que constater mën nga bañ a d'accord on est en démocratie y a pas en tout cas man boog bu doon man solennellement parlant ma toog je donne une interview j'allais pas dire mon pays mais je vais dire notre pays parce que la question a été directe et claire il a est-ce que le Sénégal est sous coup de menace terroriste donc man je vais pas répondre di wax mon pays mais plutôt notre pays laay wax parce que man c'est le nous qui qui qui l'emporte sur le jeu loolu nag question boo xam ne la kenn ku ci ne mën nga apprécier selon la lecture selon ni ngay gisee li nga xam ni mooy discours parce que au-delà de tout c'est le président de tous les Sénégalais donc on a droit à décortiquer son message et à avoir une autre lecture qui diffère des de de de de de de celle des uns et des autres loolu la on est en démocratie soyons en désaccord pour fêter notre accord loolu amu ci benn problème mon ami Souzy voilà léegi kon ñu gis ni moom ci élan boobu la ne mooy élan personnifier maanaam maanaam li nga xam ni personnaliser li nga xam ni mooy état man loolu laa gis je vi un chef d'état qui s'est replié sur lui-même qui était qui montrait qu'il était sûr de lui-même bon dans sa façon de montrer l'incarnation absolue qu'il se fait de l'État, il a commis beaucoup de bourdes communicationnelles. man loolu laay loolu laay loolu laay wax bon keneen ku ci ne nag ak ni nga koy apprécier mais avançons dans les détails parce que les détails moo ñuy permettre ñu xam li nga xam ni li tubaab di wax le diable se trouve dans les détails avançons maintenant dans les détails mooy troisième point bi nga xam ni gis naa ko bon il répond en disant quoi mu ni Sénégal nekkul ci menace terroriste de temps en temps jot nañ moom pays la wax sax mais mu ni de temps en temps dinañ jot ay renseignements comme quoi ay alerte moo ko wax mais dama leen di renvoyer au événements de mars au événements de mars ya a un, une ministre des affaires étrangères le ministre de la justice sénégalaise bon ak ñeneen yu génn de l'État du Sénégal des autorités de l'État du Sénégal ñu génn après quatorze doomu Sénégal dee maanaam quatorze doomu Sénégal ñuy ñu leen di ñaanal d'une manière solennelle di incliner waat devant leur mémoire devant la mémoire du porte-drapeau ki nga xam ne mooy Cheikh Wade qui a été abattu froidement par des forces qu'on nous a dit ñu ngi incliné wu en tout cas man Cheikh Kane je m'incline solennellement devant la mémoire ci maanaam ñi nga xam ni ñoo faatu ci événement mois de mars yi mooy fukki doom ak ñeent yooyu yu Sénégal léegi ñu wax ñu tenir ñu un discours ni ñu y a des forces occultes yu dugg suñu réew bon ñoo ñooñu nañu xam ni président de la république dans son interview nee na amul nee na loolu amul parce que il a dit indirectement moom moo ko weddi quand il dit que ni le Sénégal amul menace terroriste de temps en temps on a des alertes te na jàpp nañ fi Imam Ndaw jiñ ko terroriste tëj ko jàpp nañ fi ay sénégalais jiñ leen terroriste tëj leen ñooñu ñëpp kon président bi wane na ni loolu ñu doon def teguñu ko fenn du woon yoon moom moo ko santaane wala moom ci boppam moo ko bëggoon loolu képp moo tax ñu def ko mais teguwul fenn celui qui l'a dit allez le prendre mot à mot ngeen xam lu mu wax moom moo ko wax du samay wax moom moo ni Sénégal amul terroriste de temps en temps dinañ jot ay alerte moom moo ko wax donc force occulte yooyu kon moom force occulte yi war ni kon du waxi tappale la woon du woon waxi dara nag li ñuy wax rek ki vérité maanaam dëgg dëgg moom day yàgg rek mais mooy mujj kon ñi jàppoon dafa ni dafa am ñu fi dugg bëgg ñoo omnibulé di ñu bëgg a rey ay capitaine jéeg di fen ci télé yeeg di wax na nañu xam ne dañuy fen Macky salle vient de leur montrer que ni ils étaient dans le mensonge ay force occultes amu fi woon mois de mars ceux qui ont fait euh, ce ce ce sale boulot là ceux qui enfants sénégalais là et eh bien na leen xooli feneen mais pas ci ay forces occultes yu fi dugg voilà c'est le président qui l'a dit kon comprenons-le ainsi à moins que force occulte traduire bon peut-être ay nervi wala leneen je sais pas c'est pas moi qui qui parle mais en tout cas moom moo ko wax moom moo wax lool muy maanaam quatrième point bi ma seetlu ci discours bi bon léegi ñu demaat ci discours bi parce que c'est un discours pas un discours même une interview très riche moi je vous recommande encore une fois d'une euh, d'une manière modeste ngeen dem am maanaam courage ak mbégte suivre interview parce que ça vous permet de comprendre et dans ça vous enseigne sur l'homme tolluwaayam fu mu toll degrém fu mu toll ak ni muy xalaate parce que il avait un rendez-vous avec ñi muy waxal waxul ak sénégalais encore une fois il s'est pas s'adresser au sénégalais il voulait pas s'adresser aux sénégalais il s'est adressé aux occidentaux ak partenaire sénégalais yi nga xam ni xëy na peut-être on entend que dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy Euh, talonné di ko wax affaire troisième mandat wala il voulait les donne leur donner des garanties sur maanaam li nga xam ni moom lay def bon voilà loolu mooy man li ma gis ci interview c'est pour cela je vous recommande d'aller visionner l'interview ngeen am ci aperçu bu gën a rëy bu gën a leer maanaam Cheikh Matar maa ngi lay ziar di la jéem a di la baalu ak di la baal ak di la jox sa wàcc waaye di kontaan ci yow sama grand kontaan naa on continue ci analyse bi il nous dit quoi après bon ñu ana ñu continuer ci on a maintenu tubaab yi moom bëggoon nañ maintenir question terrorisme bi parce que tubaab yi li leen intéressé ci terrorisme bi ñoom mooy que ni gis nañ problème problème mu France diggante France ak Mali dafa am problème bu rëy te gis ngeen ko maliens yi moom pare nañ ci tubaab yi ci français yi wax nañ leen ko France amatul xaalis bu mu defee guerre Mali amu ko la guerre au Mali coûte deux millions de deux millions d'euros par jour à la France deux millions d'euros et je répète la guerre au Mali coûte deux millions plus de deux millions d'euros par jour à la France donc France amatul xaalis bu mu guerre Mali non seulement amul xaalis mënu faa gañe waxul la ko fa yóbbu donc mu ngay wut porte de sortie bu mu fa génnee waaye bëggu faa génn noonu ndax am na kersa ba pare lam fa doon wut amu ko ba muy daw Afghanistan di déployer di dem Mali en fait dafa yoon ni woon moom la mu bëgg Mali da koy am moo tax ñoom ñoo jàppale woon IBK teg ko Mali sàccal ko élection yi mu renouveler son mandat heureusement pour le peuple malien ñu def benn say jële fa IBK donc IBK c'est de l'histoire ancienne mais puisque France nag dafa tiit fi mu ne nii ndax li ko tiital mooy Mali dan ni ñoom dañuy dem ci côté russe jël li nga xam ni mooy maanaam la la mën nañu wax la garde privée wala l'armée privée wala les mis les les nu mu leen tudd les snipers privés yi nga xam ni bon Russie daf ko am comme ni ko France amee en ah, France am na légion française bu ñu sonal américains yi am nañ ko euh, on sait bien que ni américains yi am nañ lu ñu mel pays yi ko am bari na en fait léegi nag ñooñu la France tiitloo tiitloo Wagner bi nga xam ne Wagner c'est des Russes en fait ñooñu ñoo war ñëw faire face aux terroristes parce que terroristes ay bandi lañ da ngay wut ay bandi une armée classique mënul xeex terroriste loolu amul fenn ku la ne armée classique mën naa xeex terroriste day wax lu ko neex amul bon ce que les Maliens ont compris et heureusement pour les Maliens maintenant la donne est en train de changer neexul France dégg ngeen ministre de la defence bu France bu mu ñëwee comme une colonialiste cette attardée la colonialiste la femme boobu ñëw Sénégal di ñu wan ni naan soit boo àndul ak France noonu France nga ni ñu koy wax madame la ministre shut up lan lay wax xam nga li américain di wax shut up shut up la ñuy wax ay we we we we give a damn du noonu ngeen koy waxee émi ma ne ko madame la ministre we give a damn xam nga ci yow sa position ak li ngay wax on est derrière le peuple malien, on est fidèle au peuple malien et on est fier du peuple malien qui est actuellement incarné par l'armée républicaine malien Nous sommes derrière ce peuple-là. moo tax madame la la ministre ñun lay waxaat shadap voilà grande gueule nga rek euh, colonialiste nga euh, voilà yow amoo le leçon boo ñu jox ñun dégluwuñ la wala boo déggee sama message ma répété ko madame la ministre nous n'avons rien à de de de de de vos paroles, nous n'avons rien à faire de votre discours. On est derrière le peuple malien, on reste fidèle au peuple malien et on est fier du peuple malien qui est incarné aujourd'hui par l'armée républicaine malienne. Moi, je vous répète ça, madame encore, la ministre de la Défense de la France, je vous dis solennellement, vous n'avez qu'à la fermer. Voilà. Loolu passage la woon pour lui attribuer une leçon, on continue. bon journaliste yi insisté nañ ci question terrorisme bi li ñu wax mooy ñoom danni ko en fait ndax affaire u russe yooyu ba dem nañ sax ba dugal ci Alassane Ouattara parce que nee nañ ko nee nañ Alassane Ouattara nee na loolu bu ko Mali defee ça serait très une décision très léegi ñu laaj mm, président Macky Sall heureusement dugul ci seen jeu j'ai trouvé un Macky Sall averti bon foofu noonu ci question boobu parce que lu mu wax mooy moom mu ni non il faut pas ñu dem ci côté boobu noonu parce que waruñu sanctionner Mali waruñu poser la question de la sorte loolu la wax parce que pourquoi mu ni waruñu question poser la question de la sorte parce que nee na question bi nekkul ci ay fii nga fii euh, kii nga woo wala kee nga mais Mali ci cadre CEDEAO Mali jox na leen ay garantie yu leer parce que Mali nee na en tout cas les autorités qui représentent le Mali mooy actuellement les militaire wax nañu waa CEDEAO ni leen loolu dara amu ci ay rumeur la bon ñoom nag nee na ñu ngi toog di xool moom loolu la gëm nee na gëmul rumeur yi kooku moom dama ci saluer sa position parce que je trouve que c'est une position courageuse et a c'est une position ki a été claire et limpide mu daal di ciy boole nag daan nag daal di foofu nag fa la commencé nag di développer moom mooy développer c'est le président ki développe moi je le prends mot mu daan ni foofu dañu war a xam ni en fait Afrique yëngu gi mu yëngu waruñu nangu ay militaire di ñëw di def ay coup d'état maanaam di renverser l'ordre maanaam constitutionnel xam na xam na ni am réew ay ay ay ay élection moo koy gagné c'est lui qui parle bon mais dañ ko bëgg a xamal ni constitu euh, maanaam ordre constitutionnel bokk na ci mooy nga respect respecter calendrier républicain bi mooy boo waree convoquer élection nga convoquer ko parce que loi bi moo la ko jox yow moomoo ko loolu gis nañ je laisse les sénégalais apprécier est-ce que président bi mu ngi respecter l'ordre constitutionnel maanaam le calendrier républicain je laisse les sénégalais apprécier respecter l'ordre constitutionnel bokk na ci nga respecter maanaam constitution bi parce que respect constitution bi mooy la première charte constitution mooy la première charte de la république c'est la charte qui réunit les sénégalais kon boo ko respecté wul di ko changé changé ko pendant seize fois ci neuf ans yi nga fi toog mooy boo taxawee di wax yow da ngay condamné coup d'état da ngay da ngay nax sa bopp da ngay nax jéem a nax sénégalais yi mais je laisse les sénégalais apprécier mu daal di ciy teg moom ñu laaj ko Guinée ndax lu mu wax lu mu xalaat lu mu xam ci Alpha Condé mu daan ni moom xamul comme dégg na ko comme ñëpp rek Alpha Condé bon voilà que ni mu ngi ci résidence surveillée ci kër jabaram bon loolu la wax nee na essayé na ci dans le cadre de la CEDEAO jéem a xam exiger woon na sax ñu libérer Alpha Condé mais dafa mel ni moom bi muy wax kon guinéens yi déglu wuñ ko faale wuñ ko voilà mais nag bu leen fàtte ni temps yi dafa jël benn ñaari décret yu am solo décret yu am solo la jël dafa jël généraux yi nga xam ni dañuy dem retraite 60 ans xam nga généro sénégalais yi 60 ans la ñuy dem retraite conserver seen privilège yëpp bu ñuy dem retraite ñoom lépp la ñuy conserver maanaam mu yokkal leen deux ans maki sal illa l'a fait généraux Sénégal yi yokkal na leen deux ans deux ans la ñuy demee retraite mu jëlaat ñi nga xam ne ñooy officiers yi sous-officiers yi mu yokkal leen maanaam li nga xam ne ñoom tamit propulser seeni carrière maanaam loolu def na ko léegi nag loolu moom c'est des question yoo xam ni je laisse en fait les fonctionnaires parce que ñooñu ay fonctionnaires lañ les fonctionnaires sénégalais appréciés mooy maanaam les enseignants les médecins et les autres fonction les autres classes yi nga xam ne ñoom faalewuñ leen yokkalul leen li ñuy kaas jotuñu ci maanaam maa ngi interpellé aussi les militaires sénégalais waxuma nag bu ma waxee waxuma l'élite de l'armée ñooñu waxuma ak ñoom parce que ñooñu seeni privilège daanaka président bi faj na ko mais bu fekkee yow da nga ni en fait gëmoo ni militaires yi dañoo war a dañoo war a maanaam jiite yow yaa ko wax yaa gëmoo militaires yu jiite dañu war a respecter ordre constitutionnel mais looy yokk à à deux ans de de de la fin de ton mandat nga ni da ngay yokk ay ay ay retraite militaire da ngay yokk maanaam ay salaire salaire militaire ça laisse à penser bon mu daal ci teg nag ñu ñëwaat ci fi nga xam ni mooy mandat bi mandat bi nag man daf ma neex bu ma koy analyser parce que mandat bi dañ ko laaj journaliste mi ni ko est-ce que yow sa mandat bi bon pas son mandat c'est le mandat que lui le peuple sénégalais a confié parce que mandat moom moomu ko peuple sénégalais ñoo ko jox pour cinq ans bon bu jeexee 2024 peuple sénégalais nangu ko léegi ñu ni ko mandat bi nga xam ni peuple sénégalais ñoo la ko accordé renouvelé ko 2019 mandat boobu ñu bari ñu ngi wax Sénégal lan nga ci xalaat est-ce que yow dangay ngay projeté pour troisième mandat mu ni moom du ci wax bon am na droit bañ cee wax man pour man journaliste yi Sénégal ñoo matul pour man sénégalais yi ñoo desee mat parce que man pour man ay président mën naa bu ko neexee na bind livre sax défendre mandat défendre troisième mandat na bind livre na bind encyclopédie sax loolu kenn du ko tere mais ñun waaye waxam engagé wuñ li lay wax ni ay waxam engagé wul Ablaye Wade ba mu waxee ni waxeet la preuve sénégalaise war nañ ko ko ñun li ñu engagé mooy la constitution sénégalaise lu mu wax sa à dire il faut ñun Sénégal aussi en un moment donné ñu xam lu ñu bëgg soit ñun dañuy élire nit nit ki doy doy nañu ay waxam la ñu gëm ñu bàyyi suñu constitution yeeg bàyyi suñu loi yi teg ko fële wala dañuy élire nit mu tënku ci li nga xam ni constitution bi ak loi yi moom lay wax Joe Biden génn na fii wax fii si wax ay Poutine est-ce que dafa engagé États-Unis les Américains s'en fichent c'est les paroles de Joe Biden mais da Joe Biden bu engagé Amérique signé au nom des États-Unis wala wax au nom des États-Unis bu boobaa Américains yi lijjanti ko donc ce que Macky Sall rêve ou bien ce faire c'est son problème na ko def bu ko neexee mu ni damaa bëgg am mandat ba deux mille cinq bu ko neexee. Mais nous, la Constitution sénégalaise, elle est claire. Dans son article 27, il dit ceci. L'article 27 de la Constitution sénégalaise dit ceci. Nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. loolu noonu boo ko jëlee cette phrase là nga dem ci école primaire nga yóbbu ko ci ay élèves ce nga jox leen ko ni leen analyser ma grammaticalement cette phrase là dañu koy def maanaam mooy nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs kenn kenn mënul tegale ñaari mandat yu tegaloo def ko loolu lañu wax mu leer naññi kon moom mënul am mandat de 2012 à 2000 à 2000 2019 jóge fa ama 2019 à 2024 muy mu tegaloo ba pare ñaari mandat yooyu tegaloo nga bëgg faa nekk di amaat beneen mandat nul la ñu wax kenn amul ku yàlla sàkk ku ko mën nul la tubaab nag jafewul tubaab moom li may moo tax foofu laa dul d'accord ak ñu bari bu ñuy wax ay droit dafa compliqué non droit mënta compliqué droit science la science par extraordinaire du compliqué si nul n'est censé ignorer la loi mooy kenn warula wuute loi loolu lañ wax du loolu lool lool lool ñoo koy wax kon droit boobu mënul compliqué parce que doomu aadama yi moo tax ñu bind ko su compliqué du amati sens moo tax ki bind ki bind euh, constitution bi maanaam le rédacteur mooy Ismaïla Madior Fall mu taxaw répété ko ñetti yoon mu ni répété avec moi mu ni nul nul nul fair peut plus de deux mandats consécutifs répétez avec moi nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs loolu mooy leitmotiv bi nga xam ni moo war a gouverner sénégalais yi mais pas ay dina def troisième mandat yéen loolu c'est un débat de sonde xam nga débat de sonde en politique mooy débat yi nga xam ni de temps en temps dañ koy tal tasaare comme bal sànni ko ci jaww ji pour xool maanaam capter en fait maanaam teneuru sénégalais yi fan lañ toll bu ko defee ñi ciy nekk ñun di ngër-ngër yi ay troisième mandat journalistes yi di leen habiter ils sont avec le régime ils sont avec Macky li ñuy def mooy leen koy jox sax ñoom ñoo leen di jox question ya ak orientation yi ñu leen ci sonal il faut pas le croire il faut pas le suivre dans ses délires voilà yéen fi mu ne nii fi ñu toll nii moom bu ko neexee il continue di délirer ni day am sax dix dix mille mandats il en a droit bu ko neexee mu rêver ne am na day am dix mille droit dix mille mandats sauf ko ñun dañu am lu ñuy tënk maanaam au delà du discours moralam bu fekkee moralam moom may na ko loolu muy tenir un tel discours moo xam mais ñun li ñuy atte mooy en fait li nga xam ni parce que droit dafa am li nga xam ni mooy mooy la loi ak l'esprit de la loi li war a animer maanaam li tax ñu tëgg loi boobu te au Sénégal ba ñuy tëgg maanaam l'article 27 dafa am coow lu ko waraloon coow loolu nag mënuñu ko waral ba ay doomi Sénégal dee ci en 2012 na 2012 ñu bëgg a waat coow loolu sénégalais di ci topp man des fois j'ai mal à reconnaître le peuple sénégalais parce que souvent ñun dañuy dugg ci yoo xam ni amul benn sens parce que jërëjëf Mamadou moo Malaysia li nga indi ni mooy lool nul naa le droit de faire deux mandats plus de deux mandats consécutifs loolu la ñu wax loolu buñ ko waxee leer na nañ ñi jeex na tàkk amul leneen luñ ci teg parce que l'adjectif consécutif quand fii def ci am benn rôle clé bu muy jouer consécutif dem leen ngeen xool lan mooy définition consécutif tubaab la ñuy wax kay ñu ñëpp jàng nañ tubaab am nañ bac même lii boo amul bac sax am BFM sax mën nga ko analyser donc y a pas à faire un débat da ngeen di dégg nu mu provoquer débat bi parce que moom fi leen bëgg a dugal mooy en fait day mel ni moom la décision lui revient ci moom la aju te loolu la ñu Ablaye Wade naxe woon ba def candidature am parce que à un moment donné ñoom dañuy gëmloo ni ñoom budul ñoom budul ñoom maanaam réew mi du dem fenn wala ñoom ñoo waral ñuy wax réew mi parce que journaliste bi la ni ko est-ce que dangay ngay dangay ngay da ngay da ngay kiiwaat da ngay présenté waat mu daan ni moom du ci wax moom c'est un démocrate léegi bu heure bu jotee dina ci wax kon maanaam mooy sénégalais yi toog leen di ma déglu di ma xaar man maa man mi borom réew mi man mi nga xam ne maa moom réew mi bu jotee rek dinaa ci wax loolu amul sens léegi sénégalais yi ñoo war a xam le message qui est derrière message bu muy jox ñi nga xam ne ñoom lay waxal parce que waxul ak sénégalais il s'adressait pas au sénégalais il faut que les sénégalais le comprennent la preuve wa français la doon waxta xam na ni 15 pour cent des sénégalais sax dégguñu tubaab kon il s'adressait aux autres man bu ma jibee toog fii am jot vendredi soir waroon def leneen ma toog fii di décortiquer ay message defuma ko parce que dama bari wax déedéet j'ai énormément de chose à faire mais dama jàpp ne xëy na peut-être discours euh, interview bi ñu bari lecture bi nga ci war a am doo ko ci am wala ñu bari dégluwuñ ko moo tax waxuma nag li may wax moo am cent pour cent je suis pas dans le secret des dieux néewuma foofu mais pour man dañu war a am beneen lecture boo xam ni mooy wuute ak lecture bi mu ñuy proposé parce que moom wax na bu ñu ko tee mu wax bu ko neexee xoola mu bàyyi ba suba la élection yi sax mu wax suñu yoon newu ci l' mooy ñun on a des lois on a une constitution on a un précédent y a la jurisprudence Wade jaar na fi du wadd dañu woon day dem par force fu mu mujjee tey ji il est en train de raser les murs malgré son âge ñu ngi koy saluer de passage di ko ñaanal mu gën a gudd fan kii nag moom xam nga amul at yi Wade am on va voir ba xam ak déclaration fa la ñuy mujjee ak ñun moo tax man pour man bu ñu daanu ci kàmb googu nga xam ni moom lay gas moom lay préparer naan ay ma le moment venu dinaa wax ak man man du ma du ma ko attiser journaliste bi dem na ba ni ko yow da nga waxoon ni doo ci wax doo ci dindi on se rappelle de ses de ses dires moom moo ko waxoon mais tey lu mu wax nee na il est démocrate parce que entre temps américain yi Blinken ñëw na Dakar secrétaire général secrétaire euh, euh, politique euh, extérieure bu États-Unis maanaam un pu un un un fervent démocrate ba pare nekk koo xam ne ku essentiel un pion essentiel dans l' état dans dans dans l' américain bu mu ñëwee Dakar on a suivi son discours il a été clair il s'est adressé au peuple sénégalais ba pare wax ne moom il croit moom dafa ni gëfa gëm il croit que le président Macky Sall est un démocrate te du àgg foofu noonu moom loolu la ko wax ba pare daa le Sénégal est un grand peuple ne Amérique Sénégal la xaritoo Amérique il s'en fiche de ay Macky Sall ak ay Ablaye Wade l'Amérique depuis 60 ans est amie au Sénégal moi je m'en réclame parce que c'est un peuple qui nous qui nous a choisi et qui est qui être ami avec nous et qui est fidèle dans son amitié je préfère dix mille fois l'amitié que les Américains m'accordent par rapport à ces colonisatrices de la France kooku nag ça n'engage man moom laa gëm pour man Amérique ils sont fidèles dans leur amitié te wan nañ ñu ko moo tax Blinken du mu ñëwee allez visionner son discours il a donné une interview ak ñoom ITV ak ñoom Mamadou Ibra Kane mais aussi il a donné un discours il faut des fois dans la république dans la vie de la nation ñu taxaw ci nit ñi la ñuy wax dafa am sens sinon amul sens dañ fi layam-layam yi rek te du dem fenn américains yi wax nañ lu leer dégg ngeen yeneen ambassades yeneen ñi wax nañ mais problème bi mooy ñooñu ñëpp di wax c'est des amis du Sénégal man encore une fois je vais pas fuir le débat di ko yóbbu ci ay tubaab yi nee nañ ko man góoma yooyu li ma gëm mooy les Sénégalais nee nañ ko au mois de mars moom gis na lu mu lu mburu di daj ca taal ba gis na ko ñun ñoo nekk fii di wax mais moom xam na parce que ba mu waxee loolu ba pare après mandat bi nee na li amoon mars moom du fi amati parce que on peut pas se permettre maanaam mu ñëw li muy def mooy maanaam di di layam-layami moom naan ñu ay mënuñu nangu ay nit ñëw jël en otage le pays moom moo ko wax mais ci kaw loolu waxul kan moo jël en otage le pays l'essentiel daal quatorze sénégalais on été tués te moom jëlul sax moment bu solennel jaal leen encore une fois encore une fois président de la république ba tey taxawul jaal les quatorze sénégalais yi faatu xale yi faatu jaalu leen il avait une belle occasion si interview bi mu jaal xale yi mais jaalu leen allez visionner la video di ngeen gis ni jaalu leen man mii nga xam ni tekkiwuma dara man Cheikh kan je suis un citoyen boo xam ni bu ordinaire boo xam ni tojul fenn xëccoowul dara wutul dara lu ludul un patriote achevé un républicain laïque bu gëm Sénégal au moins man bi may commencé sax di wax ci xale yooyu solennellement je me suis incliné devant leur mémoire mais on constate aussi que président de la république moom jaalul xale yi loolu mooy il fou de quatorze xale yi nga xam ni faatu nañ te pourtant mënoon nañu nekk ay doomam mënoon nañ nekk ay jarbaatam mënoon nañ nekk ay sëtam rappelons que xale bi ci gënoon a doon xale 14 ans la am 14 ans la am mais jaalu leen dem leen ngeen xool vidéo jaalu leen prétexte sax la wut daal ni lu fi amoon di fi amaati jeex na ñu avancé foofu mu dem fi nga xamee na nag foofu nag moo gën a neexal interview bi et là je vous invite aussi à aller le suivre mooy biñ nee ko nag fi xadd kaaba gi pour man nag fi nga xam ne dans un pays sérieux bu fekkoon on est dans une république sérieuse qui se respecte président bi dañ koy arrêté dañ koy arrêté parce que bu demee mu ni mu ni ñu ni ko da nga supprimer le poste de premier ministre moom moo ko wax léegi lu tax mu ni dafa bëggoon e testé mooy test dafa bëggoon a tester après sept ans mu tester maanaam la gouvernance directe kooku j'ouvre les guillemets il dit je cite Macky Sall je voulais tester après sept ans d'exercice la gouvernance direct moom moo ko wax léegi moom loolu mu wax mooy moom de 2012 à 2019 premier ministre boo xam ni c'est la constitution sénégalaise moo maanaam prévoir maanaam premier ministre encadré ko ak ay article mu nekk chef du gouvernement certes il est nommé par le président de la république mais il devient chef du gouvernement et il contresigne il a un pouvoir de contre contresigne lu la koy wan mooy décret bu Macky Sall signé bu ko premier ministre Sénégal signé wul à l'époque bi premier ministre di am décret ba valabulul boo gisee abdul Mbaye coow li ko topp ci Petrotim mooy maanaam rapport ba moom moo ko contre contresigné contresigne c'est la loi qui le prévient moom mu xëy benn jour maanaam ci prérogative yi ko loi jox joxu ko prérogative maanaam génne maanaam ci constitution sénégalaise boo xam ni ça a été adopté par voie référendaire li may wax nii nag c'est des termes juridiques xëy na duma juriste mais aussi on se laisse pas berner am na loo xam ni dañ koy gëstu ji indi ko imposer ko comme un débat parce que ça mérite d'être débattu ndax ab peuple boo xam ne dañ ko woo consulter ko par voie référendaire en 2016 mu dem référendum voté constitution bu bees constitution bi ñu voté maanaam génnewuñ ci premier ministre dañ ko ci maintenir maanaam la préfecture la la euh, li nga xam ni mooy mooy mooy mooy premier ministre ak fi muy nekk léegi nga gis ni moomu premier ministre boobu génnewuñ ko ci nga dem am deux pour cent ci référendum bi maanaam dugal na ci 15 articles yu bees mais ak articles yi fa nekkoon ñu génn ko primature laa doon wax primature mooy fi premier ministre di nekk loolu mooy l'institution mooy premier ministre ak li yanu léegi primature boobu génnewuñ ko ci constitution bi nga jël ko yow li nga xam ni mooy constitution boobu daa di toog ba mu neex la après sept ans nga ni da ngay tester une gouvernance direct moom moo ko wax man waxuma ko ce sont ces dama bëgg sax maanaam li nga xam ni ñooy les les les professionnels de la politique les spécialistes du discours politique ñu wax ñu lan mooy gouvernance directe parce que man gouvernance directe man xawma ko en tout cas quand on me gouvernance directe maanaam man li ma ci xalaat mooy corruption loolaa ci xalaat bon peut-être je me trompe mais c'est ce que je pense en premier mooy corruption léegi lan moo ci am gouvernance direct la wax moo tax mu supprimer maanaam li nga xam ni constitution Sénégal moo ko prévoir parce que bu leen fàtte ni constitution bi nga xam ni moo doon 2012 moom bi mu ñëwee def ñu proposé waat constitution boo xam ni mooy bu 2016 bi te dañ ko voté nangu ko accepté ko peut-être je me trompe de la date si c'est pas 2016 c'est mais je pense que c'est 2016 vous pouvez aussi me rectifier parce que j'ai pas pris le soin de vérifier la date la date en toute modestie maa ngi avancé date boo xam ni xawma ba xam sax exactement moom la mais en tout cas li may wax mooy référendum bi nga xam ni am na fi bi nga xam ni moom la Macky Sall la ko maanaam organisé woon référendum boobu laay wax léegi moom mu ñëw daal di jël jaar par voie maanaam parlementaire la constitution a été adoptée par voie référendaire moom il passe par la voie parlementaire nee na daal di dindi li nga xam ne mooy premier ministre parce que nee na moom dafa jàppoon ni dañu war a dafa bëggoon a tester la wax sax tester maanaam da doon da doon euh, maanaam daal barkeelu ni ko murid yi waxe wala da doon jéem a natt daal ba xam jaarale affaire yi ci gouvernance directe xay na gouvernance direct bu ma ko déggee mooy fast track bi doon wax en tout cas loolu la wax c'était en 2016 on me précise merci ma chérie kontaan naa léegi noonu lan nga ciy gis mooy en fait li nga xam ni moom moom la moom la def moom la wax léegi mu am beneen bi nga xam ni man daf ma jaaxal dans le discours dans les propos du président mu daan ni moom day dem ci li nga xam ni parce que journalistes français yi dañu xarañ dans le façon de poser des questions il faut nit ñi di am habitude di taxaw ci questions yi ñuy poser journaliste bi dañu ko posé question ni ko yaa ngi dem Union africaine pour maanaam jël li nga xam ni mooy en fait présidence Union africaine mais daan ko nag li nga xam ni mandat buy mandat boo xam ni la mandat buy bu la désigner buy pivoter la parce que bu ñu fàtte ni Union africaine Alpha Condé jiite woon na ko tey jii ana Alpha Condé mu nga résidence surveillée ñu denc kon union africaine nekkul loo xam ni titre honorifique la rek mandat boo xam ni la c'est un mandat boo xam ni en cours de président bu ne chaque année chaque année day tourner léegi moom mu daal ni non lu tax muy dem union africaine ak maanaam Afrique nu mu nu mu xumbee ak problème yi nu mu bare moo tax de amati coo du jot moom c'est le président du Sénégal qui dit aux Sénégalais d'une manière solennelle et en direct de télévision française que son la France 24 et la et la RFI il di ceci nee na dootul amati jot pour s'occuper au quotidien du Sénégal mooy loolu sénégalais yi réew mii nga xam ni yéen moom ngeen ma dénk ma dese ci ñaari at Union africaine gi nga xam ni dañ ma ko jagleel rek te moom defu fa loi dindiwu fa loi amul doole dindi loi amul doole yokk fa virgule turfatil ay ni union africain parce que union africaine pour nga def fa dara foog 54 états yi d'accord moom amul kon pouvoiru def fa dara wala soppi fa dara lu mu mën a am mooy avis la fa émettre avis fa am avis boo xam ni moom en fait bu ko émettre mën nañ ko rejeter mën nañ ko d'accord mook ay nawleem ñoo fa ne kon moomul Union africaine léegi mu ni Sénégalais yi fixé leen ak regardam dans les yeux ni leen réew mii ngeen ma dénk talatuma ko aw ma jot réew mi loolu moo tax ma juge man man président indiwaat li nga xam ne mooy premier ministre parce que il faut ma nommer koo xam ni il va s'occuper au quotidien du Sénégal man je trouve que ni bu doon réew mu normal boo xam ni ay nit yu normal ñu ne démocratie ak république bu normal lañ un président qui dit ça il doit être démis de ses fonctions pour man man man loolu laa gëm pour man un président ki avance un tel discours il doit être démis de ses fonctions kooku méritootul yor réew ma parce que bu fekkee da laa fal devant le suffrage universel avec des urnes nit ñi voté nga ñëw di incarner maanaam plein pouvoir bi dans un régime présidentiel nga taxaw mën a wax sénégalais yi ni leen li ngeen ma joxoon mandat honorifique bii nga xam ne Union africaine daf ma ko jox moom laay gën a tal moo tax talatuma leen mu ngi mel ni un père de famille boo xam ni dañuy njabootam gëwuma leen taluma leen parce que école bee ma doon grand place mais ma doon dem di fréquenter de grand place ba dañ ma faa nommé chef de grand place maanaam le schéma est fait noonu la mel Un père de famille qui dit à sa famille, à partir de maintenant, débrouillez-vous, je n'ai plus votre temps. waaw li des mooy en fait fële mu nga xam ni c'est là où je me retrouvais avec des amis c'est-à-dire la grande place pour jouer et puis passer du bon temps avec des amis ils m'ont fait l'honneur de me désigner comme chef de grande place à partir dorénavant débrouillez-vous je ne pourrai plus m'occuper de vous loolu lay nuroon Donc, c'est les Sénégalais, encore une fois, de prendre leurs responsabilités dans ce qu'il a dit. tamal loolu laa gisu Sénégal gisuma loo xam ni sénégalais yi def nañ ko et c'est grave ñu ngi layam-layami on veut pas s'attarder ou bien s'arrêter sur le discours je vois pas l'opposition sénégalaise euh, maanaam réagir parce que boo wul mooy wane ni comme toujours maanaam ça passe et man loolu laa gis réagirul parce que wax jooju dafa grave boo ne union européenne bi nga xam ni mandat tournant la c'est un mandat tournant maanaam comme ni ko te bizarrement extraordinairement parlant au moment où Macron di doon président union européenne maanaam di jël mandat tournant bi au niveau de l'union européenne c'est le même moment aussi la Macky Sall di jël mandat tournant bi à l'union africaine bon vous allez me dire que ça, ça relève du hasard peut-être c'est du hasard je sais pas en tout cas man resemblance bi sama me trouble ça trouble moment boobu Macron di jël maanaam mandaam fële ca Union Afrique européenne moom la aussi choisir jox maanaam ki nga xam ni mooy Macky Sall mandat Union africaine ba pare mu xamal ni ñu Sénégal talatul Sénégal lijjanteetul Sénégal premier ministre lay wut confier ko Sénégal ce qu'il a dit moom ko wax allez vérifier il va confier la gestion du pays à un premier ministre. Parce que le Sénégal doit être géré d'une manière quotidienne. C'est lui qui l'a dit. Au quotidien, la ñu war a gérer Sénégal moom moo ko wax donc man li ma leen invité mooy maanaam li nga xam ni dem leen ngeen déglu li mu wax parce que limu wax lu am solo la mën ngeen ci jàngat def ci seen lecture. il a parlé de beaucoup de choses wax na ci coup d'état yi wax na ci terrorisme. wax na ci constitution bi ak mandat yi wax na aussi ci premier ministre bi ak son retour wax na ci yooyu yëpp wax na ba ci wax ci événement mars yi voilà loolu mooy li nga xam ne man tey jàpp naa ni c'est le discours et puis ça mérite d'être consulté ça mérite d'être vu ça mérite d'être entendu waaw loolu mooy tey li nga xam ni jàppoon naa ni tey mën naa ko indi ñu waxtaan ci je vois que ni qu'on a dépassé l'heure parce que dama ko bëggoon a tënk ci benn une heure de temps ñu waxtaane ko encore une fois pour ñi nga xam ne dañu dabe waxtaan wi ma rappele en fait li nga xam ni mooy en fait le pourquoi tey jii waxtaan wi mooy ubbi waxtaan yéen a nga gis ma dabe ko ci hymne du Sénégal laa njëkk a teg d'habitude je joue une musique d'Ismaël Lo qui s'appelle Tadjabone mais aujourd'hui puisqu'il s'agit d'un numéro spécial moo tax j'ai bloqué le compte à 20 parce que les chroniques de Cheikh Kane vingt numéro la nekk mais puisque c'est une chronique spéciale jee voulu marquer la solennité l'événement jee bien fait de commencer avec limne du Sénégal mooy hymne bi nga xam moo ñuy réunir en tant que sénégalais c'est notre identité première boo ko déggee bu la fekkee nga toog da ngay jóg taxaw boo dee dox da ngay taxaw sargal ko l'hymne boobu c'est Senghor la les paroles son de Senghor la musique d'Hébert Pépère mais damay lancer un débat ou bien j'ouvre une brèche pour les Sénégalais ma jàpp naa ni l'hymne du Sénégal ne traduit pas le peuple sénégalais la grandeur du peuple sénégalais man loolu laa gëm pour man l'hymne manque de de de de de de de profondeur dans ses paroles et de profondeur dans la musique je lance un débat j'en profite pour provoquer un débat afin que sénégalais yi discuter ci hymne bi ban hymne lañ war a am est-ce que jotul après 60 ans que sénégalais yi am courage choisir hymne boo xam ni par voir référendaire lañ koy def maanaam voie référendaire mooy lan mooy on invite les sénégalais ñu waxtaan ci lan lañ bëgg bu ñu amee hymne ñu traduire ko ci wolof traduire ko ci joola traduire ko ci séeréer traduire ko ci lakk yépp un hymne qui nous ressemble parce que peuple boo dem boo dégloo seen hymne da leen di ressembler mais au Sénégal tey jii boo defoon sondage quatre-vingt-dix pour cent des Sénégalais mënuñu chanter l'hymne national mënuñu ko moi je trouve que le texte est lourd les paroles sont compliquées la métaphore est biaisée parce que un lion rouge qui rougit gaynde du xonku voilà ça pose un problème boo ko waxee un enfant de CE2 il est confus parce que moom couleur yu muy gis ci gaynde ba pare nga wax ko métaphoriquement parlant un lion rouge ki rouge yi da koy jaxase maanaam euh, euh, euh, balafon yu ñuy yëngal dóor ci ay kora da koy jaxase pour man voilà loolu paroles yi kon mën nañ ci mais dinaa ci ñëwaat encore une fois ci hymne bi indi ci benn discours benn jàngat boo xam ni avec des professionnels de la sémiologie ñi nga xam ne mën nañ def langa sémantique wax ñu lan mooy maanaam la sémantique avec des professionnels grammairiens yoo xam ni mun nañ ñu décortiquer le texte avec des professionnels de la philosophie ou bien de la sociologie ñu wax ñi li nga xam ni mooy hymne du Sénégal parce que jar na en fait ñoo ñu woo ay professionnels ñu décortiquer ñu le message voilà loolu dinaa ko def gis ngeen après nag ci laa xuus dugg ci li nga xam ni mooy l'interview wax naa leen couleur yi nga xam ni man ce g j'ai vu Macky Sall porter pour man ça ne reflète pas un homme jovial un homme agréable dans l'interview je l'ai vu porter un costume boo xam ni dafa sombre parce que mu nekk ci décor boo xam ni un décor gai agréable ensoleillé pour man boo amee say gan yaa leen recevoir sa kër waroo lourd te j'ai trouvé le président dans sa façon de s'habiller il était lourd man loolu pour man bu ma ko doon conseiller en image du ma ko conseiller li mu sol bon la chemise c'est bien c'est une chemise blanche mais cravate bi maanaam àndul ak chemise bi pour man àndul ak costume bi parce que cravate bi moom la marié ak costume bi daa di dégager une neutralité de la chemise pour man d'accord neutralité baax na mais par rapport au décor man gis naa ni ça manqué j'ai trouvé quelqu'un qui était lourd pour man cravate sax moment yooyu damay dindi sama cravate damay nekk koo xam ni je vous reçois avec maanaam relax parce que da ngeen a ñëw ci palais boo xam ni c'est le palais du Sénégal këru Sénégal la dama lay wan ni c'est la culture de la terranga moo tax d'une manière de teranga lay solo du ma def cravate c'est là où Obama est vraiment un gentleman bu doon Obama du takk cravate wala buy takk cravat cravate boo xam ni day takk cravate poivrée boo xam ni dafay nekk un cravate léger bu simple bu rafet bu simple bu nekk cravate boo xam ni ça reflète en fait li nga xam ni mooy la joie de vivre sénégalaise mais doo takk cravat boo xam ni en fait en fait couleur yu sombre nga boole kook benn costume grisaille bu sombre alors que actuellement le mois de décembre c'est pas ce mois-là la ñuy porter couleur yooyu moi j'ai fait le Sénégal récemment mais j'ai trouvé que le soleil était là et décor bi palais aussi c'était un décor jaunâtre boo xam jaune bi moo ci ëppoon il fallait maanaam qui s'habille d'une manière ensoleillée c'est ce que j'ai pas vu dans l'habillement bon gis ngeen aussi question yi ñëw nañ ci Mali gis ngeen nu mu ko abordé gis ngeen ni mu aborde yeneen question yi en fait la Guinée gis ngeen aussi rôle bi mu jox la part belle ak message bi mu envoyé les militaires parce que xamal na leen ni leen du ñu nangu ay coup d'état bon quelque part c'est d'une manière indirecte qui s'adressait à lui-même loolu c'est une façon de dire à l'armée sénégalaise et aux autres restez dans les casernes bon il est libre de le dire li ma ci gën a retenir aussi mooy li nga xam ni wax na ko jëme ko ci mandat bi nee na sénégalais yi je m'en de vous ak seeni argument maay décider c'est moi le président de la république la constitution n'existe pas li may décider moo am solo mooy je suis un démocrate l'essentiel mooy man moment bi bu jotee dinaa ci wax donc sénégalais yi nañ xam seen bopp encore une fois wax naa leen ni discours bi man lu ma ci retenir il s'adressait pas aux sénégalais la preuve mooy journaliste yi fa ñëw moo leen fa indi man pour man sax moo convoqué discours bi interview c'est lui qui l'a voulu pas les journalistes c'est lui qui a voulu faire l'interview ma lecture me donne ça c'est lui en fait ki a provoqué l'interview qu'il a voulu pour donner en fait des gages aux occidentaux parce que moom occidentaux yi lay waxal français la leen wax mooy américains dañ koy traduire dégg ko en anglais allemand yi traduire ko dégg ko en allemand anglais yi traduire ko dégg ko en anglais ma naar yi ko dégg ko bu leen waxoon wolof xëy na duñ ko mën a traduire bon am na ay tradu traduction wolof am na mais il sait pas s'adresser au sénégalais il faut que sénégalais xam ko ki doon wax waxul ak ñoom intéressé woo leen ko léegi nag ñun en tant que républicain Sénégal moo tax ñun boog man man je fais mon parti maa ngi liggéey suma liggéey liggéey bi may liggéey nag mooy j'ai pris mon courage à deux mains décortiquer maanaam man jàngat discours bi analyse boobu laa ci def kenn ku ci ne ci ñun nag am nga libre def maanaam li nga xam ni mooy sa jàngat ñi nga xam ni dégluwuñ ko encore une fois je vous invite à aller regarder à aller voir l'interview dem leen ngeen seetaan ko dem leen ngeen déglu ko bu ko defee ci ngeen xamee réew mi ak ñi yor réew mi fi ñu toll voilà loolu mooy li nga xam ne tey jugé woon naa nécessaire tey ñu partagé ko maa ngi leen di sant di leen gërëm encore une fois di am plaisir ak mbégte di gis ne audience bi mu ngi yokku soutien yi maa ngi koy gis maa ngi gis message yi maa ngi gis li ngeen may bind maa ngi gis encouragement yi awma seen fay yàlla moo am seen fay yàlla mi nga xam nag moo am seen fay yàlla na leen yàlla fay lii rek lañ am kuy wax kuy déglu la am moo tax bu ñu toogee fii di wax sans aucune prétention lañ koy defee waxuñu parce que dañoo jàpp ne am nañ xam-xam xamuñu dara dañuy wax la Socrate doon wax Socrate le grand philosophe da wax tout ce que je sais c'est que je sais rien mooy ñun loolu la ñuy wax mooy li ñu xam dañoo jàpp ne xamuñu dara kon échange lay doon dialogue lay doon on est dans le dialogue on est dans l'échange c'est pas parce que je suis ici prétentieux taxaw seen kanam di wax non non damay avancer une lecture je avance une analyse je fais un commentaire après mu am interéchange am na ñoo xam ni d'accord nañ ci am na ñoo xam ni d'accorduñ ci am na ñoo xam ni il pense que ni samay propos day dem ci benn critique wala dafa bari wax nañ xam ni man je comme ça de nature je suis fougueux je suis maanaam euh, voilà dama dama mel ni ku bari wax mais sama nature la en fait je suis bouillonnant bon c'est le tempérament sénégalais c'est le tempérament alpulaar ki m'habite c'est le tempérament sérère de par ma mère et c'est le tempérament wolof les wolof qui m'ont sevré du tempérament ay jéem a jaay dara wala bari wax man mënuma wax ndànk en fait je parle fort j'ai l'impression je donne l'impression de crier mais du ma yuuxu nit ku dalla ci dal laay wax yéen bu dëngee na ngeen ma baal xam ni du luñ ci jublu bu baaxee wala muy njariñ ñu bokk ko encore une fois c'est le Sénégal moo ñu ñor Sénégal moo ñu tax a jug Sénégal la ñuy waxal ñu ngi leen di baalu xàq di leen bal xàq di leen ñaanal guddi jàmm di leen jox rendez-vous prochainement fii nii ci fi nga xam ni mooy les chroniques ou bien les cahiers de kan pour defal leen yeneen jàngat ci actualité bu Sénégal ak biti réew di ziare sama mbokk yëpp di ziare sama xarit yëpp di leen wax li ngeen wax maanaam dox daje ci maanaam dig daje ci fan yu néew jàngeen jëf on l'a tenu à une heure trente minutes je pense que c'est bon je vous dis bonne soirée bon week-end et encore une fois bonne nuit